asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Abdul Ahad yaag sa bokk yi nga àndal di suñuy bokk maa ngi leen di delloom nuyoo di rafetlu seen jéego yi ngeen jóg ñëw ba ci noonu di sàkk ay kàddu yu jëm ci ab soññee gannaaw bi nu ziyaara Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan yàlla yàggal ko fi te ko mboolem li mu yéene liggéey Serigne Touba mu def ko ni mu ko bëggee te ñu ànd ko moom di ziyaara itam bokkam yi mbokkal bokkal Serigne bi yëpp ak mboolem taalibe yi Serigne Touba yi ak jullit yëpp noonu yi nga ko waxee rek xidma moom jàpp naa ne benn murit boo naan bu ko ci xidma mu de ko nangu doom xanaa aw bokk yéen rek lay doon waaye ku ci nanguwut a bokk amut ndax xin moom mooy lépp ci yoon wi kon nag ndokk bi nu ci boole bi ngeen nu ci nangoo boole ndax liggéey la boo xam ne yàgg naa leen wax ne lu ku ci bëgg a bokk rek bokk ci sëriñ bi mooy tànn ñu ko doy mu dugal leen ci liggéey boobu kon nag la ko gën a ñor muy jumaa ji la ko gën a ñor muy julli juróom la ko gën a ñor mooy alxuraan la ko gën a ñor mooy weeru koor kon nag jëmmi lislaam lañ leen dénk te loola la koy firndeel mooy sëriñ bi ba muy wax jumaay Tuuba ku am bët yu neex du dugg sa bopp ndax booba dëkk bi ñetti guuxu ndox yoo yoon naan képp da të ndox amu fi aw yoon amu fi ak gott la muy wax jumaa ji ni mu nar a rafete ak néeg la may jumaa ji ni muy mel nga xam ne moom bu doon ci zahir da nga naan defal nañ maquette bu boon kooku ba mu gis ko ba xam ne muy mel waaye boobu ñi mënta dégg ay waxam da leen di jaaxal waaye ci yooyu jamono la waxoon ne sama jumaa ji nag bu noppee sëriñ bu soobi ak borom sam ñoo ma ciy jiiteel war waxee sëñ bi wax ju naqaree dégg la moo ne ba nëgëni day gisaguma ku ci jiite ku ñaar ñooñu doonut ismaam buso buso yi ci ne yëpp suñ buso bi seen maam benn sëñ maamun mii nga xam ne mooy jiite moo ji mooy imaam ju mag ji di jiite ajjuma suñ bàkki buso moo ko jur suñ buso bee ko jur suñ aafe ak suñ baara seen ñaari waajur ñoo bokk lépp te sëñ Afi mi bokk soxna aw Bousso lépp di doomi suñ buso bi moo leen jur waaye yëmu ca borom saam ji day feeñ ba ci seen seen néegum ndey sax ñoom ñoo ñu seen ndey borom saam a ko jur waaye ba ci ñi ciy naafile boo seetloo seeti borom am lañ kon jumaa ji ba nag ni génnul ñaar ñi sëñ bokkoon sëñ Bousso bi ak borom saam ñoo may jiitil sama jàkk ji waxe sëñ Tuubaa nag ñàkk xam lam lam jubloo wax waaye waxam jépp noonu la mel loo gisagut wala loo xamul la mu ci jublu waaye lu mu wax lu mu am ba noppi la lu ko borom may ba mu teg ci bëtam di ko nettali kon nag ku am xaasi bokk ci ñi liggéey ci jumaa ji war ngaa yàlla bu baax a baax ndax moo la nag noo ngi leen di tàllal loxo ci liggéey bi yéen kenn du leen soññi yéen a war a soññee waaye nag sañ nañoo soññi ñiy ñëw ngir ñu déglu leen te yam ci seeni i ndigal tàmbale ko suñu jëm mi bopp damaa jàpp ne daal li alquran di wax ne in tansurullaha yansurkum yàlla soxla wun dimbalul kenn waaye day wax ne dimbali leen yàlla mu dimbali leen loolu mooy lim teg ne bu ngeen ko defee mu jox leen dimbalam aw leen ci may kaw lay mu mën leen a waaye sëñ Muntaxa it fii jamono toll mu nangu loo xam ne jaaxal na ñëpp te bëgg sëñ Tuubaa ak yërëm bi ak yéene neen leen ñu ñëw ci sëñ Tuubaa moo tax mu gàddu lépp war naa am noonu itam lu ñu ko fayee mooy fexe ba mu am ndam fexe ba kenn du jam yoon wi fexe ba kenn du xas yoon wi kenn du mën a teg dara loo xam ne ci deru murid yi nga koy teg te fekk dëgg la te dëgg la luñ sos nag kenn bañu ko waaye loo xam ne xam nga ne murid yi sàggan ba mu am loolu moom jàpp naa ne murid yëpp danañ maase xeex ko ba du am loolu nag la ci jiitu mooy bépp murit buy ñëw defal ci sa xel mii ne yow yaa yan responsabilité bu rëy rëy yow mi ñëw Tuubaa defal sa xel ne da war a set wecc set sa bopp ci biir ak ci biti ba fii ngay ñëw lu set wecc fi ne te doo fi indi lu koy taxal ngir liggéeyal ko Sëñ Tuubaa loolu nag pas-pas moo koy lal. ci saaxiir si nag nga déglu ndigal li sëñ bi wax ne nañ cay déglu kër docteur takk masque yomb na koo xam ne bu ñu laajoon sa bakkan nga joxe ko ñu la takkal masque rek raxasul raxasul mooy setal rek del set tey takk masque loolu yomb na sëñ bi ndigal li yomb na lool nañ koy def ngir dimbalee ko sëriñ bi ñi nga xam ne ñoom lañ jënk liggéey bi kuñ ci wax dara bu ca teg baat xam ne sëñ bi la ko wax ndax sëñ bi moo leen xool bañ bañ doy ko mu ne leen teg teg naa leen fi luy tax mbir mi mel na mu war a mel bu leen ma ci déglu seetal na mu baaxee ñu ànd ñoom ñëpp ne ko nii lañ xalaat ne mooy baax mu leen fekk naa leen ci kon nag murit bu ne boo ñëwee ba ci ñoom jàppale waxoo ak ñoom sëñ Muntaxa ngay waxal buñ diggalee digalee digaluñ la sëñ Muntaxa lay digal kon kuñ ne yemal fii yemal fii kuñ ne defal lii defal lii bu ne laa dugg nga ci barab bi. sa pas-pas na la may fuñ la ne yem fa nanga fa yem bul jaayu xiir ba def loo wërta def bul laal loo wërta laal bul àgg foo wërta àgg bul def loo wërta def ni barab bi dama leen ci jox mel misaal rek sëñ bàkki bi mi nga xam ne bi sëñ bi bi noppee gi sëñ bi ci zahir ba indi ko fii moo taxaw ci kanam taxawu te loolu ba ak daraja mënu koo weesu xam gum xam sëñ bi ak weg gumu ak sëñ bi ak xam dara jaam dëgg dëgg dëgg tax na ma si dugg ci barab bi soroor bii tolloo kër Sëñ Saliou bu ma saa gi muy yor lañ koy ci wetu gannaaw kër Sëñ Abdou Khadir lañ fay tekki fas bu dox ak tànkam ba ci foofu ci soroor bi foofu lay toog fi du egg ci li muy siyaare daal delluwaat Gédé ma dugg ci barab seen maam yéen ñi Sëñ Afe bokk ak soxna aw busa lépp ngeen war a xam li mu doon ci sëñ bi ndax sëñ busa bi waajuram mbal gii la daa sumi dàllam bu ma dugg ci dëkk mbal gii li sumi dàllam mosu fee sol dàll te ñooñu xanaa bu dee jege sëñ bi ñoo gën a jege bu dee xam sëñ bi ñoo gën a xam doomi sëñ Tuubaa yi li ci ëpp dawuñu àgg ci biir néew ma ñëpp di waaye li ma xam ñi ci ëpp ñu néew néew ñooy dugg ci biir sëñ Abdul Xaadir moom fa nit ñi yem la daa yem foofa lay toog jublu penku ñaan ñaan dem ma si dugg ci biir sax sëñ la xat li ma xam lépp guddi gàmm lay siyaare li ci ëpp te ca penku lay toog ca wetu tàndarma ga jàkkaarloog sëñ bi te day nekk ba guddi gi xaaj ñu bari duñ ko bàyyi xel sëñ yi moom bu weer bu at miy dee mu dem ba jub barab bi toog foofu waaye du dugg ci biir kon ñoo ñoom ña xam sëñ bi sëñ fa lu ñëw na fi bis fekk ñu toog foofu bari coow li bari mu ne mu ne yàlla na yàlla musul ci miin ndax miin loo miin yàpp ko te loo loo yàpp rek doo ko jariñoo li ëpp na waay kon nag nañ xam ki ñuy fekk si mooy kan ki ñuy fekk si mooy ki nuy xettil tey ëllëg buñ ko ñàkkee lu baax lépp ñàkk nañ ko buñ ko amee lu baax lépp am nañ ko kon nag lu nu koy may nañ ko nañ ko bàyyi xel waaye raj laj loo bi coow lu bari li te xam ne sëñ baa ngi leen di dégg yéen ñëpp li mbooloo mi bari bari bari kenn ku ne la ngay wax ak la nga fas sab sab xol ma ngi koy gis ma ngi koy dégg te boo ñaanee moo lay tontul bopp kon nag ànd fi dal ak déglu ndigal ak yem fuñ la yem loo nga yam fa barab bi romb ko rekk dem te teewlu sa xel ak sa xol doy na sëriñ bi gis na la loo ñaan bu ko sa pasal matee moo koy nangu soxla wut sa àgg suuf bu ñu leen nee bu leen toog yam leen ci ndigal bu leen topp buñ leen ne dem leen ne dem leen ne buñ leen ne def leen di def leen nii feneen fu dul fii kat ku fa dem lu ñu digal da ko def ndax doo ko sañ bañ ndax dañ cee gàll ab yar mm-hmm. fii nag ciy teggin lañ leen ko ñaane kon nag ciy teggin ngeen ko war a nangoo ak ci taali bi mm-hmm. kuy wéy ci taali bi boo diggee xidma membre xidma ak ñañ àndal ci liggéey lu ñu digal na nga ko def ci màggal gi la ci jiitu mooy ku ne na am teggin ni Cheikh Mahamadou Mountakha boo dee bu gis ko mu takki masque war ngaa rusa dox te te ko masque ci biir màggal gi dañ ko jox jooju war ma ndegam dañ koy gis muy takk masque ku dugg ci jumaa ji takkal masque ku ko tëkkut bañ ne la demal takki ko nag bu ca xuloo bu ca coow demal fexe ba am masque takk ko dóor dugg fuñ ne la yem fa rek yem fa ngir yàlla nañ leen dimbali yéen ñii ba liggéey bi yomb liggéey bi nag weesuur warmaal sëñ bi bàyyi xel sëñ bi bàyyi xel barab bi te xam ne fi la su liñ gën a bëgg tam tam gënanu lépp fi la ne ku fi ñëw noo mën a mel jikko joo mën a mel teg ko fële ba génn te xam ne boo fi egsee ki fii fekk si mooy koo xam ne danga am bis boo xam ne ñëpp dañ la bàyyeeg moom te moom rek la mën a mën a xet di mu Sëñ ay waajur dañ la ba ay bokk dañ la ba ay xarit dañ la ba say njaboot dañ la ba te boobaa fañ lay dugal nga fekk ko fa rek ngay bëgg kon nag fexeel ba booy ñëw ci mu ami teggin akub yar tey dégg ndigal tey jëfe ndigal noo ngi leen sant di leen gërëm di soññi taalibe yëpp di nag ci daraje sëñ Tuubaa daraje Cheikh Mahamadou Muntaxa mi ko fi nekkal ngeen ñëw ak jàmm fekk fi jàmm fii nag jàmm rek fi ne li nga xam ne xewoon na fépp di dox ba egsi fi mbooloo fu ñu nekk dara ne fa Touba mooy deuxième capitale waaye jàpp naa ne fiñ ko àggale woon sax àggu fa te li fi ne ko ne set na kon na kuy ñëw fexel ba bul taqal boo sàmmee si jëmm defar ko ngir jëmmi Sëñ tubaa ba indiwoo ko fi doo ko fekk waaye itam ñi ne nañ xam ne nañ góor góorgóorlu ba téye seen bopp taxaw ci seen jëmmi bopp nag ba genn gan du fi ñëw jële ko fi ñaar rek am kii ñëw ak kii de na taxaw tem bu mu ko jox kenn kii ñëw it bu ko fi andi jamono bay ñoo ngi ñëpp jàpp nag di jàpp di jàpp nag bu wér ne safaru ba mu bii mooy saafara si jàngoro ji day jeex takk suñ ci wàcc lay fayeen mbir buñ ko ci dimbalee nag nan ko dimbale nag nan dimbale sëñ bi nag li ciy saaxir ñoral ko ko li ciy baatin ñu bàyyee ko ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. macha allah.